ci biir population bi pour offrir leen yenn prestation yoo xam ne xam ne ni seen jot bu leen mën a may tout le temps ñu ñëw si taal bi ñoom tey nag dañuy wàcc sur le terrain pour def si euh, jigéen ñi def dépistage cancer du col ak dépistage xale yi aussi ñu profité waale si xale yi ñu vacciné leen contre l'HPV nga xam ne mooy vaccin bi nga xam ne boo ko defee xale bi am na lu baax suñu borom ànd également aussi ñu defal rattrapage xale yi nga xam ne commencé jotuñu ko yeggal ci centre bi ñu defal rattrapage aussi ñu ngi profité waale ci journée bi defal dépistage bi ñu yar koy dépistage defal aussi dépistage HTA mooy tension bi nga xam ne dafa sonal nit ñi ko gën a xamee ak daal euh, boobu euh, journée boobu nag ñenn ci ay naataangoom teewe woon nañu ko ak ñenn ci askan wi di ko rafetlu tey ñaan li mel bañ fi géej ndax activité bii daf ñoo ñor ndax activité la boo xam ne nii dañu bëgg programme yëpp jógandoo centre parce que bu ñu nee district district centre la centre nag am na 14 euh, postes yu fa nekk léegi si biir postes yi nag bu ñu sañoon activité bi ñëpp koy def léegi nag tey nag ñu rafetlu tey si li ñëw ci centre de santé Hann Mer pour mëne suñu activité. parce que li tax kontaan nañu ci ñii nekk quai de ay écailleuses ngi fi ay mareyeuses a ngi fi ay mareyeurs bëri na ñoo xam ne am na ay commerçantes aussi ay restauratrices ñoom ñëpp affaire bi euh, prestation ñu le fait ñu génn sa ñëw ba fekk leen fi ñu liggéeyee vraiment kontaan nañ ci lool lii dañu bëgg chaque fin du mois wala bu mënul chaque fin du mois deux euh, deux yu nekk euh, ñu ñëw dañu ko defal. ngay teg say mbànd essence si biir di ataay te ñaan ma mais bu bu explosé te fan ngay jaar. lu nekk mën na ko jur parce que essence xam nga essence dafa nekk loo xam ne ñam mook safara bokkuñu dara bokkuñu amul fenn fu ñu bokkee te xam nga kër yi gaz mu ngi fi leneen ak leneen da ngay gis koo xam ne day xam nga dafa garaaw daal. ci risque yooyu la askan wi yeewoo fii ci Hann bel rawatina ñi nekk ci Hann Lebu gi jàpp Hann Montagne di dund lu nu mel nag dara waralu ko lu dul manqué fu ñu def seen ay essence maanaam ay box. fii essence boo ko fi tegee benn wóorul. parce que boko tege fi tay nek ci bir meun nañ jël seen ben essence essence dafa cher te ñun li mo nu yobbu buñ ko am ndox ñu geej essence mo ñu yobbu geej kon tay boko tege fi tay ñaan ma wax yalla tay ji naaj bi japp ko sax mu gonflé éclaté tay loy wax nga tal kër jambour après benen assurance ah beneen après benen engagement day tew xam nga essence noy ko baxul te ñun ay jambour gu sew lañ am xam nga man nga genné fekk sa doom nga fo wala sa jarba nga fo xalé xamul xalé xamul dara wala man na ko naan mën na ci def leneen lu ki da bu boba leneen la lay jural. box bu tijjeegul ba legi mo fi nek ba tax ñuy ñaan mairie bu an belair mu defaral len ay su yu jappandi ndax mu man len indil ay safara suñu amon ko ñu ko ko ñu ci jappale dina bax defaral ñu yeneen mais xam nga lu tolloog fukki gal wala lu ko ëpp nga am ñetti box nga lolu te do jox ki bayki fokk dañ koy waxtane rek si biir mbokk. si la lépp xaaj ñu waxtaanee ko ba box bu nekk au moins ñu jox ko ñetti gaal wala ñeenti gaal pour ñëpp am. ñu fi nekk monsieur le maire honorable député yi fi nekk gouvernement bi ñun ñu ngi leen di ñaan te yàlla tax ay xale lan du ñu wàcc ci terrain bi di marche di ko naqaru parce que mën na ko kam ñeneen ñun koy defee mais ku ñu yar ak ku ñu yarul c'est un peu différent mais li leen di ñaan mooy ngeen ñëw si njëkk ak teraanga ngir yàlla ñu won leen bi nu bëgg ngeen defal ñu ko mhm. xaalal ñu place defal ñu foo xamante ni même bu fekkee moo lee sax seen i bagage bu fekkee denc nañ ko dinañ fa mën a toog mën a récupérer am benn temps boo xamante dina mën a génnee seeni mbaal di ko defaraat ndawu Hann Montagne 5 doon amal bëtu sensibilisation ngir waxtaane seen ëllëgu quartier rawatina ñàkk kaaraange gi nga xamante ne ñoo ngi koy dund jamono ji ak yeneen i poñ ba tax askan yu fa yeewoo di koy naqarlu. pont Kappa bi xam ngeen ñaata mètre la def 500 mètres keroog bi coow li amee agression bi bi muy am gendarme yi dañ ne ñun ñi ngi nii toog ni lañ toogee ci biir brigade bi di jàkkaarloo kii agressé ñuy agressé jigéen mais ñun mënuñu jug parce que bu suñu diggante. cinquante mètres la mais yéen ñun dañu ñun daal yaa ma fi mel dañ ñoo tënk ñun waruñu wax waruñu def dara dañoo war a toog rek naa nii oui monsieur oui monsieur oui monsieur gis nga bu projet di jàllee ay lampadaire amu fi sécurité amu fi yaraax macha allah musuñoo am lu bon mais dinañ am lu bon bu boobaa même li ñuy wax naa sécurité nañu fay créer ay comité de gardiennage ci biir koñ yi loolu dinañ ko def

publicité bi ku ñu fi fekk dina dund bi nekk na lu metti lool ci askan wi rawatina ci boroom kër yi di daan seen doole ci marché yi ñu àndoon ceeg màgget Thiam nekk boroom kër teyit di jaaykat di ci àddu. ceeb bi seer na diwlin ji seer na mbargaal la géej gi seer na jën amut jën wu ñu rekk am ñuy ñaan nag Macky sàll mu dimbali ñu rekk wàññi ceeb bi wàññi diwlin ji ndax ñun jaboot yi sonn nañ chaque ñoo ngi togg ay ay ñoo kenn. tubaarkàlla ma allah ñoo ngi sant yàlla sax waaye bu ñu doole rek ñu jël ñuy ñaanal Macky Sall nañu jàppale dimbale ñu te yàlla tax wàññil ñu ceeb wàññil ñu dul ji ndax jabo di sonn nañu xale yu góor yi seen liggéey demeewul noonu tubaarkàlla màggale nañ waaye tekkeegu tekkileeguñu moyen bi doy na waar tubaarkàlla macha allah bu ñu sañoon daal mu ceeb gi wàññi diwlin ji te yàlla rek tax loolu rek la ñuy ñaan Macky Sall

benn côté métti na ci benn côté trop mais lu mënta ñàkk la xam je pense que te tey jii moom mooy loolu daal métti na ci ñun métti nañu si jigéen ñi quoi te suñu sañoon ñu jàppale jigéen ñi si wàll bi moom quoi xam ñun ñooy dugg ci waañ bi xam dana métti seen côté te danañ ñuy jox de pare après ñu jël seen xaalis te ci dolli genre bi quoi. commune de Hann bel le lëkkaloog ville de Dakar ñoo doon amal seen atelier de lancement ñeel wàllum liggéeyum ndaw yi fële ca mairie bu Hann li ko waraloon nag mooy tàggat ndaw yi bañ mën a demal seen bopp. tey dañu koy ñëw pour lancer une deuxième thématique bi ñu defee première thématique bi c'est la gestion du quai de pêche tey ñëw na pour lancer deuxième thématique c'est l'emploi des jeunes avec euh, le coaching territorial bi nga xam ça a été développé par le ville de Dakar mu nekk benn outil boo xam ne benn processus boo xam ne acteurs yi wax seen xalaat.

acteurs yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo concerné wu muy industrie yi muy acteur économique yi pour seet ñam solution yi ñuy def pour que Hann ay ndawam mën a mën a jëriñu ci li nga xam ne moom la ñu. c'est un sujet très complexe du loo xamante ne lu yomb la mais en tout cas euh, tey euh, journée de lancement la permettre nañu ñu jël benn échantillonnage mën na am sax peut-être am na ñu ñu fàtte mais du ñàkk après ñu dabu pour mën ko yokk mais ci ñi nga xam ne suñu xel ci ñoom la dem woo nañ leen muy des acteurs en tout cas très engagés wara bok xalat xalaat. ñàkkum liggéey nekk na lu ñu nemmeeku ci réew mi ba tax na mairie bu an taxaw temm ngir ànd ak ndaw yi te ci di leen ñaax ngir ñu gën a góorgóorlu. mbirum emploi monde bi yëpp la mais ku nekk da ngay jëm a seet solution bi nga xam ne moom moo gën pour régler ñun gis nañ ne en Bel-Air emploi yi comme yeneen communes mais bii am nañ opportunité mooy fii am na industrie am na entreprise dañ jéem a seet entreprise yi les maires, maire bi naka lañ pour nous arrêté liggéey waxuñu rek par xas suñu mais ñu avons leen gunge leen ci ñu am métier les encourager en tout cas les encourager et je pense que euh, nous allons la municipalité ça je le dis euh, euh, sans complexe mm-hmm. euh, la mairie n'a pas la solution pour absorber le chômage mm-hmm. la solution aujourd'hui, c'est cette jeunesse. La construction. En tout cas, il faudrait que nous développons un partenariat et nous les incitons en tout cas à davantage, en tout cas saisir le coaching qui est en fait, qui n'est rien d'autre qu'une innovation en termes de, recherche de solutions. Parce que c'est surtout ça. fédération sénégalaise football Marseille ngir waxtaan ak ki nga xamante ni moo di Bouna Sarr Bouna Sarr nekk xale boo xamante ni mu ngay football ca France ca Marseille yaayam nekk ab Guinéen papam nekk sénégalais moom mi nga xamante ni temps yi mu occupé média bi ak pays africain yi waaye ki nga xamante ni moom moo di agent Bouna Sarr li mu wax leer na mooy ki nga xamante ni mooy joueur tëjul benn yoon ay buntam ngir ñi nga xamante ni ñooy dirigeant sénégalais parce que pare na pour football si fii nga xamante ni moom moo di Sénégal. kooku nga xamante moom moo di Kalidou Koulibaly nekk. joueur sénégalais bi football fële nga xamante ni moom moo di Napoli ca itali moom fa nii ñeen ñooñu nga xamante ñooñu waa Manchester United ñoom ñoo ñi nga xamante ni ñoo ko bëgg a jël yóbbu ko ci seen équipe daal di koy fay lu tolloog ci ñaar fukki million ak juróom benn boobu ba tey nag Kalidou Koulibaly moom mais moom mooy joueur bi nga xamante ni fi mu toll nii moom moo gën a cher ca Napoli waaye tamit mom dafa melni nekul ku paré pour dem waaye wa Manchester United ñom bu ba tey bàyyiwuñ ñu ngi daw ci ginnaawam ngir rek bako jël yóbbu ko foofu nga xamanteni mom modi Angleterre. mbokk internet yi fii la ñuy yem ak yéen tey di leen jaajëfal bu baax ci teewlu bi di leen jox rendez-vous dimanche prochain ci suñu beneen numéro journal de la semaine.